basuma basuma mbare su ko non ko abidé iba famale dia ndeysaan ni ma leen waxoon la ma ñëpp di fekk dinañu xeex pour imposer élection am la vingt cinq février ñu passé ñu avancé moment yi nag fa ñu toll xeex pour élection am le vingt cinq février wa ila ñoom seen campagne de presse ñu ngi bëgg a wëlbatiwaat coow li wëlbati coow li mooy France si campagne am de presse yi ñëppay takk balaa maa ñëw si boobu foog ma am ouverture bu ndaw ndax xam ngeen man demay seetaan te ñëpp ragal la woo ku nekk senegal moom boo ko ne Baye fit bi day dem addunaam day tukki ba ci yenn chef Ndiaye gars yi sama gars yi da ngeen foog di ngeen yàq man daru nit jël de fausses informations divulguer ko man ma toog seetaan quoi booy bu ndaw xale bu ndaw parce que y des jaloux parce que faalewul kenn et bien voilà élément Cheikh yàgg la élément Farba Ngom la eh booy moo di aan booy moo di aan commissaire moo di aan man laaj leen samay élève naka laa leen formé waxuma la jàngal de formé man damay formé élève du ma a jàngal je te forme lan laa def si ñoom ak dëggu gi ma def si ñoom keroog ma dégg ñu ne Prip ne Modou Ane man leen dèjà Modou Ane dèjà gars yi nit boo ko xamul xam leen ko ñii 2016 bi muy jàll concours booy yi booy yi booy yi la Sénégal soxla c'est le bu génn université yéen ñëpp nekk pee ci majoram c'est le seul c'est le seul bu génn université direct au lieu ñu affecté ko commissariat ñu affecté ko école mu bokk DRS kooku bi muy nekk DRS bi muy génn nekk commissaire Cheikh Yàgg nekkagul sax commissaire de division exceptionnelle Cheikh Yàgg du woon gat ba gat boolo jeex police keroog xam nga live naa ne leen vous êtes en train de déshabiller le peuple le pays parce que ay paa yu màgget ma may xoola xam nañ ne ñàkk nañ ba pare ñoo bugg a yàq deru xale yi si suuf du ma nangoo ah c'est parce que moom mu ngi DRS li ma leer ba leer leen nu dong moo leen mun jotaleeg booy bi lenn dong moo leen mun jotale ak booy bi mooy signature carte d'identité nervi yi carte d'identité police yu nervi yi parce que booy bi moo nekk DRS lépp si loxoom lay jaar. leer na ma lu leen mënti jotee ak booy bi loolu lay doon ngeen na xaaral ñu dem ci laay fër yàq deram fii si ñun laay fër ku fi ñëw bëgg yàq deru justice di nga dal si laay fër bu lay tontu ba naaw ku fi ñëw bëgg a gérer laay fër ziare la ba nga naaw ku fi ñëw alaa Macky Sall mun saaga ndey laay fër saaga la nday ba nga naaw man nag moom tuumal gor laa mënul malgré que ñoom ñu ci bëri dañuy nekk say booy nekk say élève mais xam nga rek seen liggéey du leen may ñu lay wuyu seen liggéey du leen may ñu xam la seen liggéey du lay may ñu leen woo mais tey famille bu ñu jaaxle bu ñu yàqee sa dëru mbokk boo xam ne bañkat la ba police nationale ñëpp yëpp xam ne booy moo di aan yéen yéen booy bi kii saay saay jàngale naa de commissaire ba BMS bu doon dund dina leen jox sama identité jàngale naa de xam naa lu bëri si dëkk bi lu bëri dama ko xam si dëkk bi mën naan leen tuur bi mooy def tuur bi moo def li tuur bi moo def li wante defuma ko xam nga maa ngi ko wan naa su woon beneen policier fële si kaas of dóor leen ko kon est-ce que man maa waroon wax déedéet suñu âge may ñu ñuy wax lépp suñu âge may ñu ñuy wax yenn yi wante xale yu ndaw yi war ñoo gérer suñu réew xele yu ndaw yi nga xam ne boo jàppee nit ba dóor leen ba dugg si commissariat mu day la eh bien tey kooku tey lañ ñëw ne eh Farba Ngom sañul booy Modou Anne mi pël la alpulaar pire far ba ngoom amul fitu woo Modou Anne ne ko defal ma lii kon mu ne na ko salminam waaye Sénégal foog ñu sérieux tuuti yéen booy beeri yéen booy bey messi eh, yéen laay waxal BMS moom man maa fay seen bàyyi BMS moom man maa fay seen bàyyi man maa fay seen bàyyi man man xam nga mosuma wax man mais tey foog ma wax man parce que ni ngeen di def nii saay pistonné Sonko ngi def lii Macky Sall dem na ci Sonko lii li ngeen di def journaliste man doo leen ma ko def man doo leen ma ko def moo di daan yéen ñii may seetaan live ku xam booy moo di aan fan la nekk ma mamaay ban direction parce que man depuis 2016 booy bi bu muy génn major depuis 2016 bi booy bi génnee major ñu affecté ko école saa yi ma jaar école ñun xam nga école ñun lu ñu fa doon wuti commissaire Cheikhna Keita bu ñu daan toog suñu gàlle père bi chaque ngoon ndeysaan père Siar yàlla na ko yàlla yërëm xaar ko àjjana buñ ne jàpp nañ camion malien yamba mu ne la booy fis nga am la jëlal taxi demal ñëwal vite fait wala nga toog a ku ci mel ne personne mu ne la dawal ga ñëwal gam bees bi ñoo ko moom gam bu màgget bi c'est pour le peuple ay ñoom grand calzi di ko gérer am ay réseau looloo xew dakaar ay commissaire Cheikhna Keita yi loolooy seen job rien d'autre ko ça Sonko nga ci prison bi tey yéen ñëpp xëy dégg ngeen de tey waxuñu leen 15 décembre nee nañ leen lan la Macky Sall wax Ousmane ko deux ans <laughs> hey sama élection 2027 ba bu fa ñuy mujjee bu ñu xeexul fa lañ jëm ba fa ñuy mujj ñun bu ñu xeexulee 2027 lañ jëm du loi du technique du tactique ana projet assemblée nationale lu mu leen waxoon ci tonton Cheikh Ndiaye. lu ma leen waxoon ci tonton Cheikh Tidiane Coulibaly saa waay Sonko day julli de mais tonton Cheikh Tidiane Coulibaly moom xaw ma lan la sonkoo di julli Sonko day julli de mais Cheikh Tidiane Coulibaly ñoom Abdou Latif Gueye Coulibaly seen kër sookoon kooku moom ba keroog may dee falaay taxaw ndax ñit man lu ma la xamal laa lay wax man état yi affaire yi du tax ma yàq xam nga man lan mooy tax tey Sénégal man changé nii ñun coow lu bëri li wax lu bëri li rey Macky point ma ngeen ni ngeen nekk nii di calculer système anti système déedéet bakkenu Macky la wala bakkenu Sonko. ey tey bu ma mënoon tey organiser force occulte léegi ma régler réew mi barki señ Bamba tey bu ma mënoon tey for former tey force occulte léegi ma régler réew mi ndax xam nga tey réew mi fu mu jëmaat Sonko ñitu fitna la fa réew mi jëmaat. vendredi ay jàkkaarloo ki yëpp dinañ leen ko waxaat Sonko mu ngi andi fitna si réew mi ndax lan ndeysaan o oh, gars yi ñoo garaaw ci communication man gars yi dañ ñuy dañ leen di dóor toujours ci communication mais damay wax ba sama baat bi naaw lu ñu leen di wax Macky Sall ngi dialogué Macky Sall pourtant Macky Sall mu ngi wër di jàpp responsable Pastef yi Macky Sall mu ngi wër ci biir kër yi laa leen wax de di jàpp ñi war dem élection Sonko ak Macky Sall ñu ngi dialogué nee naa leen ñu fa mënti yóbbu billahi Sonko amul dara lu mu leen nangul def na ba kayit bi ñu ko fa yóbbu woon c'est des gens primitifs. rek waay yow bu leen ma wax loo waay du ma dugg ci ay détails ñoom ñëpp Abdou Diouf wax ñëpp wax église Amérique ñëpp wax Sonko tekk lay def faralul tubaab faalewul tubaab mais si constitution. sénégalaise lay toog mais ñun tey bu ñu demee tey ba tey tubaab war ne dee suñu constitution dañ ko war a respecté ñun ay nit ku ñuul Abdou Diouf yóbbu ñu la 15 Macky Sall ak Marème Faye Sall yóbbu ñu nag janvier 2027 comme ni ma ko waxee woon comme Macky Sall deux fois sept 14 la war doon moom 14 ans am yooyu ci mystique dafa am lu mu ci liggéey ba pare. ci baatin dafa am lu mu ci liggéey ba pare nag dëgg rek a neex yàlla. dëgg rek moo ma sonal ñu xëyaat xeex taal fépp ñu ne ñu lan Ousmane Sonko ñëpp dialogue nañu ak moom wante moom moo bañ kon léegi usmaan Sonko moo taal réew mi Macky Sall delloowaat buum sa booy booy ba ba loo am ne si génn <laughs> yow tuntey saa xeex bi dinañ ko xeex hey la xeexation hey la xeexamaan la xeexare la xeex xeex billaay xeex gars yi daa ngeen xeex bu ñu jógulee xeex ni bala le vingt cinq xeex ak Macky ne ko léegi nag doy na demal égrégore yëpp jóg algorithme yaa ngi ci commencé jàpp yéen Sénégal foo leen demee bu tubaab seen télé yëpp di teg senegal yéen ñun suñuy mag suñuy mag yi bon waxuma suñuy mag yi baax de suñuy mag yi bon ñoom liñ fi deful woon ne na ko makki sàll def suñuy mag ñu bon ne am jàmm mooy bañ dem élection moment bii suñuy mag lu bon ne tubaab góor jigéen la ki fi ñëw représenté góor jigéen la ba tax ba tax na moom warul organiser élection yi kon léegi dañuy puusaat élection bi te kooku def na ba waxul ak ay parti élection moo ko fi andi surveiller ay suñuy mag yi bon xale yi la jeunesse vous êtes dans un combat très très très très très complexe et très très très fatal mais extrêmement facile pour nous xam nga facilité bi fan la nekk xeex facilité bi nekkatul ci élection déedéet fi ngeen foog ne moo facile déedéet facilité baa ngi fële meneen ni la facilité devient rouge actuellement waaw waaw waaw dëgg moom mos pour jële fi Macky négociation bu leen Macky Sall wax day duul daa jekkuwul ISEM bi ñoo jekkuwul te gis nga ISEM bi bu naree ñàng ba ñàng ñu jël ko jox ko homme de tenue avancé heureusement. am na gor yu mel ne Jean Baptiste Tine yi fi toog ba tey ngeen bëgg dingeen ngeen xeex ngeen bañ di ngeen xeex ndax isem bi Bassirou Diomaye Faye du nekk seen président li ma leen waxoon démb laay waxaat tey Macky Sall faw mu jaay bakkanam ndax dafa jël égo doomam jiital ko fokk mu jaay bakkenam ndax dafa jël orgueil doomam jiital si munoo jóge 65 pour cent ñëw def passation de service ak koo xam ne ah, moo frère mënul gagner bureau de vote non noo c'est entre favori et tey defoon tey passation de service ak Ousmane Sonko wala ak Bassirou Diomaye non wala ak Guy Marius waaw mais ak Bassirou Diomaye Faye wala ak amado Ba Macky Sall nee na du ko def te du ko def moo tax peuple wuré ba dem na këng waxi mag mooy taxaw fu mu toll nii Sonko bu négocier bu génne na waaw Macky élection yi ñàkk li mu amoon lépp ni ñu defoon Idrissa Seck lañ lay jéem a def après nag sëf la coow li na yow yaay d' accord lii comme ni ko Barth waxee yëg na ko ba pare dem ba si biir ne yëgu ko moytul mu dalaat la bii paa bu la dalee benn peuple bi mën nañu comprendre mais fi askan wi toll nii xam nañ ne xeex bi dootul Ousmane Sonko te xoola ñoom juutalaat nañu ndey xeex bépp tafaat ko Ousmane Sonko te billahi xeex bi du Ousmane Sonko xam ngeen xeex bi lan la la constitution se doit d'être respectée point final on s'en fout du Ousmane Sonko candidat du candidat Macky yaa ne woon Sonko nekkul candidat Sonko ne la moom du candidat léegi Bass ay candidat wax leen ak Bass mais bas nangu ta wax ak yéen laa leen wax semaine yi la yëpp ça fait un mois Bass a gën radical Sonko ndekete li Sonko mën a baax Sonko am na sëriñ di waaw Sonko am na sëriñ am na ko virus wante mor layam layam yema ni dore mi fa bas bu faloo dëgg seen nday yéen ñëpp xam ngeen bu baax lu ma leen wax ministre yeeg Marème Faye Sall si boppam ñoom ñëpp loolu la ñuy jooy xale bi du fi faloo Abdou Diouf Abdoulaye Wade bu ñu xoolee bas mu ne nii ak sikkim bi ñu ne non <laughs> ça c'est l'horreur C'est l'horreur Ça ne passe pas léegi nag bu Sonko ne dañuy dem élection Bass mooy présenté wu dëkk bi day tàkk qu'on le veuille ou non dëkk bi day tàkk parce que Macky du ko accepté qu'on le veuille ou non dëkk bi day tàkk qu'on le veuille ou non dëkk bi day tàkk parce que sante ne se passera pas comme ça élection du fi amee te loolu Macky Sall wax na ko ba pare nee na élection du fi amee tant que Sonko d'accordul génnaat ñu retirer candidature Bassirou Diomaye Faye parce que mënatul bokk bu projet assemblée nationale bi jeexee kon assemblée nationale lu ñu fa yóbbu woon enquête wala projet de loi retiré nañ enquête ba de problème bi problème bi basa problème yoonu murit basa Abdou Khadre problème mu bi basa kon ban bas mooy problème bi actuellement ban bas mooy problème bi ban bas mooy équation bi ban bas ak toujours ñu naan leen basu moo ñi naan leen bisimilah ban bas mooy problème bi au juste ban bas ordre pour ordre Sénégal foog ñu xeex foog ñu xeex suñuy koor nag lañ leen di demandé nee nañ dañuy def autopsie boo leen defee autopsie ba pare xam ngeen ne suul nañu mooy dëkk bi tàkk na moo tax ñu bloqué koor yi tey démb ñu tympaniser leen Sonko négocié wul négocié waanul te bu élection amulee le vingt cinq Sonko va sortir faire un discours amoon discours bu mu waroon def si yoon pour bu Macky Sall sàccee élection yi ban comportement la ñu war a am ban comportement la ñu war a jël te loolu day am yenn peuple eh vendredi la Macky Sall war a wàcc point final yéen nekk si leneen armée pare na anti islam peuple pare na lan moo si des avant marque près nañu lekk nday Macky Sall jóge fi ay waay askan bi boo leen xamoon li ñuy wax nañ leen fi jëlee Macky Sall balaa xeex bi di jur leneen nañ leen fi jëlee Macky Sall li laay war a suuli ñiy dee dee ñiy dund dund man loolu laa gëm fu mu toll ni gëmatuma leneen basuma basuma mbare su ko ndonk abidé Iba Fama la jaa